mooy ñan mooy ñan. tey Amina Poté ak Mbathio Ndiaye moo tax ñuy wax. man journaliste wala question. dinaa la tontu. Mm-hmm. sa affinité ak Mbathio Ndiaye lan la. Mbathio Ndiaye may déglu. Mm-hmm. dañ ma koy présenté Touba Sandaga. Mm-hmm. xamu fi kenn mu ngi soog a jógee Kengol. Koungheul Amina Poté ba ma koy xam dëkk na fi ma dëkkoon benn kër. mu doon liggéeyee si mbay jam yi. xam naa leen. xam mais ñooñu taxu wax. parce que fii ku siiw da nga dem ba doo xamante sa bopp te ngir nekkul si yooyu man talu man taluma la ak lu mënti am xam nga mais li ma bëgg mooy nit nit da ngay jàpp nit te yàlla tax nit da ngay fàttaliku démb nit da ngay jàpp te yàlla tax mais léegi jamono ji xam lu fi nekk mooy bëgg am seen liberté bopp firi doom sëy naa tas naa sëy naa da gis xam ne kaa ma leen de dina ñëw pour sëy sëy nii rek pour gaaw a tas pour beneen góor takkoon li war a loolu mooy dañuy dem ba duñ non mais bul wax loolu de. Ah, si waxtuma rek parce que. Ah, dañuy vierge avant. no non duñu vierge maanaam. mu mel tey nga am beneen farol. bako ne ko damaa vierge bako pare nga sëy si diggante bi pour trois mois rek nga tas. pour dem sëyaat ak kële. pour sëyaat ko léegi nëpp nga sa. vierge li nga waxoon. ok xam nga mhm. léegi man dama ko gis gisate ko. Mhm. dama ko gis gisate ko mhm. dëkk bi léegi accroissement lañ nekk. waaw ah, léegi da nga bëgg a wax ni daal xale jigéen ñi maanaam euh, majeure partie. dañ koy dañ koy lijjanti. yow du yow yow dugg nga almadi guddi. Mhm. ah ca kanam di yu rafet ngay gis. macha allah ci diggéen guddi. <laughs> non non exemple laa la jox. dugg mhm. demal nga xool. maanaam dañuy def càggat pour clandestine man man man sax ñi mhm. fii sax moo gën a garaaw Amérique. Sénégal moo gën a garaaw Amérique. parce que fii. jaayu fi am dafa ëpp. Mhm. parce que nit ñi gëmatuñu seen bopp. Mhm. gëmatuñu li ñu doon. te àdduna. Mhm. loo toog rek yàlla fekk la si. te da gis ku toog sootu yaayam sax ñu xëcc la soo ñàkk si ñàkk fayda. yow nag soo amul bopp. wala amoo benn. ñu dugal la si see bi. wala gis ku ñëwul am tee bu rafet. ñu naan ah suñu ànd bi de maase wul da nga war a diw ñu mën a maase. Mm-hmm. nga nekk complet dem diw ba mel ne xobi baa nga dee fa. Mm-hmm. te liñ jël mooy nam yokku taat yokku ween. Mm-hmm. def naa nga gis ay xale jigéen yu ko def. xam nga turki li ngeen defal graisse mbaam. mbaam la ngeen non non dama dégg ni sa graisse su biir dañuy jël. def ko say taat wala ñu def ko say ween Fatou Seye sax mu tudd. turki xamuñu euh, dara chirurgien chirurgie boobu. xoolal ku bëgg a gis. ni ñu koy da ngay mu koy defee xam nga am na su dee xamuñu ko mënuñu ko mm-hmm. ñu bëri ñu bëri ngi gaañu Sénégal fii di gaañu mm-hmm. loolu moo leen loolu moo leen rey mm-hmm. dëgg la dégg naa fi ñaari dese yoo ok loolu la parce que Turquie xamuñu te ñu ngi rey seen bopp si loolu te li gën a garaaw nag mooy bu ween bi te xamuñu ko su la xasee dugal plastique soo ko changé wul day toj parce que mm. day dem mooy indi cancer daf benn góom si biir. Mm-hmm. xam nga xamuñu ko. Mm-hmm. américains yi defee wuñ ko sax biir Amérique. Mm-hmm. dañuy dem ba Duyar. dëkk espagnol yi fa lañ koy defee. xam nga te loolu dafa yéeme foog nga am yenn moyens yi. dëgg la te foog nga dem tamit di topp tawaat sa yaram di ko defaraat. di ko def am suivi quoi te jamono jii. ay xooli taat xooli ween nit ñi léegi dañoo dépassé loolu. ndax nit ñi lu ñu lekk lañ tal. xam nga. soo fi nekkee di jonga maag jaayoog nangam nangam mais mais tey jii nii jigéen ñi nga xam ne ñoo nekk ci showbiz bi dañ naan ñoom ñooy gën a promouvoir loolu ñii nee nañ dañuy gëm loo euh, publicité mensongère déjà la ñuy def dañuy taxaw ne ay tee la ñuy naan alors que naanuñu tee dañoo dem euh, dem defi ji seen ay chirurgie mhm. ñëw toog di gëm loo xale yi loo xam ne amul wala mooy tee léegi xam ne da jaay diw buy defar damay diw euh, def yu dafa taat loolu moo la may mais loolu loolu loolu war na mën a am war na mën a am fan la am diw karité yoo xam ne tey. dañ koy diw rek dañ koy di génn. ma ne demal nga entraîné ji. dañ lay entraîné loo xamante ne. tey loolu moo koy génne mais du diw yii. Mm. fii fii plupart ñiy dee ñu bëri yenn produit yi moo leen rey. Mm-hmm. parce que jigu d'accord.